docteur Falla Paye di dentiste defoon jéego ju rëy joojee si diwaanu Mermoz Sacré-Cœur ginnaaw bi nga xamee ne piqûre na poson ñetti doomam teg si xaru kenn ki sax mi ngi tuddoon Mouhamed Paye amoon fukki at ak ñett Ndeye Fatou Paye amoon fukki at ak benn caat bi tudd Thialis Paye at ginnaaw bu mu defee jéego ju rëy joojee si diwaanu Mermoz Sacré-Cœur moom Falla Paye bàyyi na fa ab lettre bu toll si fukki page amul lu mu yàqul kii di Ndeye Awa Diagne nga xamee ne moo jur Mouhamed pay Ndeye faatu pay caalis pay ñu bëri jàpp ne sax moom Falla Paye dafa jàpp doomam yi piqûre poson rek ñu faatu waaye autopsie ba mu génnee ute naat ak li nga xam ne moom la ñu foogoon ndax ki nga xamee ne mooy Mouhamed Paye papa ji da koo xoj ba mu jaaree ñàkk fa bakkanam ki nga xamee ne mooy Fatou pay moom it dañ koo xoj ba mu ñàkk si bakkanam waaye tamit ki nga xamee ne mooy caat bi di Thialis pay ñu xoj ko ba mu ñàkk si bakkanam te kenn ku si nekk fekk nañ si moom ab gaañu gaañu boo xamee ne arme balance moo ko def